شقوت أمي وزن بالعاسم لرب الغدير الخفور الرحيم شقوت أمري وزن بالعاسم لرب الغدير الخفور الرحيم فقم مشكيا لي وابل المنى بجاه النبي الشفيع الكريم وصلي عليه بخير انتهى وسلم سلاما عليه يدوم وقل لنا وخادا وكن لنا سيرا فإني عديم وكن بلطيفا وهب لي ردا وكن لي غفورا فإني مليم لي معينا على مطلب وكن مقديرا لي فإني سائم وابلي صلاحا وابلي تخا ونور جناني وزدني علوم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki seetaankat yi euh, groupement Fat communication ngeen àndal mu leen di nuyu ci euh, nuyu ko lislaam bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yàlla yàggal ko fi lool te may ko ku wér di ko ñaanal kilifa yi diine murit yëpp di ko ñaanal kilifa yi diine adduna yëpp yàlla yàggal seen taxawaay moo mottali seen yéene ci liggéey bi ñuy liggéeyal lislaam di ñaanal Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Maoul Hayaat yàlla yàggal ko fi lool te mooy ko ak wér te liggéeyam yëpp yàlla def ci tawfeex te mottali ko ci gën nga def ci ne anam ba jullit yëpp ak doomu aadama nekk ci kaw suuf mbokk yi nuyu woon nañ leen fii nag ci atum 2012 bi ñuy tàmbali juma ji di juma ya Manarul Xuda ci Touba Mbarassane ñu ubbi ko rek ci atum 2014 Serigne bi nekkaat itam ci yeneen liggéey depuis boobu. tey nag mu songaate liggéey boo xam ne ñepp ñu ko doon xaar fi ci manarul khuda ci Touba marasan muy bërëb bo xam dañuy fi fajee doomu adamay su ngeen sétlo bu baax ci waxtaan yi sëriñ bi daan ko junj wax ne bëgg-bëggam eh, moy defi fi boo bo ne dinañ fi mëna fajo ta faju mi tam mëna jappandi ci ñepp mbokk yi bu ngeen sétlo bu baax it sëriñ bi waxtaané nako bis biñu ubbi ci manarul khuda ci eh, eh, bisu ubbite gi wax na ne mom lepp lo xam day dem ci bërëb bi fàggu nako ba nopi ba amna sax ay matériels yoo xam ne jàpp jàppandi woon na ci mbokk taalibe nekk bitim réew ñu fàgg woon ko ngir mu jëm si fii ci poste de santé bi waaye nag lam waxoon ca jamono jooju mooy bërëb bu ñu ko def moom rek la ñuy xaar ngir tàmbalee liggéey bi bi nga xamante ne euh, commune bi taxaw na muy commune Taïba Mountou fa bi dëkk bi bokk di Touba Mbarassane ñu def ci ay taxawaay yu am solo eh, ba génne barab bi délibéré ko jox ko Cheikh Ahmadou Mbacké Maoul Hayaat ngir mu tàmbale def fi poste de santé boo xam ne jullit ñi dinañ ci mën a jëriñu ku dul jullit tam di nga ci mën a jëriñu te paj mi itam dina jàppandi lool. ñi yor liggéey bi nag ci daara ji di groupe Maoul Hayaat santé ñoom la ñu taxawal nii ngeen leen di seen muy docteurs yi ñenn ci docteurs yi nga xam ne ñooy taxaw wàllu paj mi di ko taxaw ci consultation ko taxawu ci don de sang yi di ko taxaw ci saytu ndongo yi lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu wér-gu-yaram ci daara ji ak ci lu génn daare ji lépp loo xam ne day jëriñ doomu aadama rek ci la ñuy yëngu ba tax na ñoom la ñu àndal taxaw tamit ki nga xamante ne moom mooy jëwrinu Touba Mbarasaan di Manaarul Xuda di Cheikh Oumar Diouf moom itam liggéey bi lépp luñ ci tàmbale ñoo ngi ko tàmbale ci taxawaayam ci ndigalu ku tedd ki mu koy jiital saa su nekk ci liggéey bi fii ci Touba Mbarasaan lépp rek tege ci njiitalu ko Cheikh Yahya Si moom mi nga xam ne mooy jëwrinu mbokk taalibe yi waaye Cheikh Oumar itam amaat beneen taxawaay gannaaw ba mu doonee jëwrinu sëriñ bi fii ci Touba Mbarasaan ci Manaarul Xuda di bokk ci ñiy saytu liggéey yi nga xamante ne sëriñ bi moo koy liggéey euh, ci adduna sëpp ci di taxawal ay daara di taxawal ay juma di taxawal ay poste de santé kon nag moom bokk na itam ci jataay bi bokk na ci jataay bi soxna Ndeye Kewe sekk présenté woon nañ leen ko ci jamono jii ñu génn Maawal Hayaat euh, groupe Maawal Hayaat communication jotoon na leen a junj lenn ci moom ci ay jaar-jaaram ci sunu page Facebook ndax moom moo yore liggéey bu tedd boobu nga xam ne moo nekk Touba di mu biin ñëwaat itam yoraat liggéey bi ci njiitalu ay kilifaam Cheikh Omar Diouf ak Serigne Khadim Gueye di ingénieur yi nga xamante ne ñoo ko jàngal teg ko caw yoon mu yoraat liggéey bu am solo bi di post de santé bi nga xam ne sëriñ bi euh, tàmbale na ko tey fii ci euh, Manaarul Xudaa di ñeenti fan ci weeru avril ci kon mbokk yi ni ñu fas yéene wooyale tey liñ leen di indil tey mooy jox leen ingénieur bi yor liggéey bi di soxna Ndeye Kewe Seck mu leeralal leen liggéey bi ci naka la tëddee lan la ñuy séntu fii su noppee maquette bi itam dinañ leen ko présenté léegi ngeen mën koo seetaan gis ni mu taaroo su àggee ak jàmm ak salaam buñ ci noppee itam dinañ leen jox ki jiite Maawul Hayaat santé di Serigne Ousmane Dieng moom itam dinañ leen leeral liggéey bi importance bi moom njëriñ li nga xamante ne am na ko ci dëkk bii di Touba Mbarassane bokk ci commune Taïba Moutoufa mbokk julit di talibé mbokk sétan kat yi ñu jàkkaarloo kon ak soxna ndey kewé sék soxna ndey kewé ginaaw bi ñu leen yo sant la bu baax ci nangu bi nga nangu waxtaan ak suñu mbokk julit di fi ci manarul khuda ñu bëggoon nga léralal ñu liggéey bi lan lañuy sentu bu taxawé ak bu aggé yan matuway ak yan dispositif ak nombre de saali ak lan lay andal dal fi tay su noppé ngir nit ñi bëgg am ak pat bu sel te wër bu ñëwé fi ñu ma waaye ah, di dellu di sant yàlla rek ba ma suñu borom boolee ci ñi taqal seen loxo ci liggéey bi waaw fii de poste poste de santé lañ fiy def ci biir poste de santé bi am na maternité am na dispensaire ci biir maternité bi am na salle sage-femme bi am na salle échographie pour jigéen ñi nekk ñi wann la am na salle de travail moom maanaam bu ñu dee matu salle bi nga xam ne fa la ñuy nekk avant ñoo dem salle d'accouchement am na tamit sa ci biir salle d'accouchement bi am na benn magasin boo xam ne def nañ ko fa ci côté dispensaire bi tamit foofu am na salle ICP bi maanaam infirmier chef de poste bi am na salle de pansement ak salle d'injection am na tamit pharmacie aussi ci biir am na tamit ñaari salle d'observation bu góor ñi ak bu jigéen ñi ci ci wàllu li ñu li ñu li nga ni moom nañuy xaar ci liggéey bi mom moy tane ni ñu ko xayma par rapport ak ñu dëkk fi inshallah ñom ñoom capacité bi nga xam dal wa waa dëkk bi soxla nañ ko poste de santé bi mën na ko jël ci kii. Euh, jërëjëf soxna Ndeye Kébé ndax mën nañu xam buñ ko doon xayma diko évaluer euh, coût euh, infrastructure bi su noppee. waaw fi mu nekk ku jëm bâtiment parce que bâtiment bi kese ci biir dafa am benn passion boo xam ne passion centrale la. moom ma moo séparé dispensaire bi ak maternité bi léegi coût bâtiment bi moom ñun ñu ngi koy estimé à cinquante millions fi mu toll képp nii te kii bi bokkagu ci mbiru docteur bi. Euh, ndax mën ñu xam aussi ndax euh, bërëb bi euh, da ngeen ci waajalaale dëkkuwaay boo xam ne ICP bi moom lay dëkkoo. waa xam nga bërëb bi moom am nañu espace bu yaatu fi mu nekk nii nii moom tàmbali dong la. ndaxte ICP bi moom mooy infirmier chef de poste bi bu fekkee fii lay liggéey faaw mu laaj mu dëkk fi kon faaw moom day am loge logement moom ak sage-femme bi léegi logement boobu tamit lu ñu waajal la ci plan mais ñii nii plan poste de bi moom moo nekk lu ñuy réaliser fi mu toll képp nii. dañuy tàmbalee suñuy kàddu rek ci sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant bu baax Cheikhul Khadim Cheikh jàmbaari l'islam di sant Cheikh Ahmadou Mbacke Mawal Xayaat moom mi waral lii lépp ndax lii lépp ab liggéeyam la moo ñu dajale fii tey ci yéeneem ju sell maanaam gis ne dëkk bi ñu nekk di Touba Mbarassane dëkk bu manque infrastructure sanitaire lañ te tey dëkk bu mag la ak village environnant yëpp ñu gis ne fii amu fi benn bérébu faju bi fi nekk rek danañ dox à peu près ay 4 à 5 kilomètres pour dem fa mu gis ne yàlla na ak population bi nekk fii ñu defar foofu ñuy fajoo ba moo tax moom si sur fonds c'est pas du financement état du financement benn bailleur de fonds mais sëriñ bi si boppam moo mobiliser lu mu am euh, ngir taxawal poste de santé bi. waaw maanaam si ay koomi boppam loo xamante ne si liggéeyu boppam la bàyyi ko si lu jëm si ay mbéy lu muy def ak loo xamante ne mi ngi koy def si wàllu wàllum sàmm ak yu demee noonu moom si fonds yooyu ci ci fonds propre ci la financer poste de santé bi. Euh, c'est une poste de santé il faut compter sur le coût de 150 millions de francs CFA pour la réalisation y compris l'équipement peut-être que on va vers le coût de 200 millions de francs CFA pour réaliser réaliser poste de santé durée d'exécution il faut compter 8 mois de travaux ah, euh, donc actuellement nous sommes au mois de euh, ah, début avril donc euh, à compter d'ici 8 mois. Donc c'est un projet qui sera euh, qui réceptionné. waaw loolu moom mooy. Euh, Cheikh Oumar euh, ndax mën nañu xam lan motax tax sëriñ bi dal li muy am. mu koy wat ci juma ak ci yu mel nii ndax delloowaatu ko lutax tax delloowaatu ko ci bopam lutax ñu laaj la lolu yag nga ak mom te yéenay jëriñam fi ci pour yow lan mo nek ay motivation ci jëf ci nga xamanteni mu koy jëf te jëme ko rek ci doomu aadama waaw sëriñ bi moom. Euh, liñ xam si moom ci suñu ànd ak moom ak képp ku ko jege xam ko ci moom mooy moom liggéeyaakoon ak suñu borom la maanaam liggéeyaakoon ak suñu borom la jaare ko ci euh, sëriñ tubaa ci yoonu Serigne tubaa ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jëm la joo xamante ni nii li ko suñu borom jox lépp da koo delloowaat yàlla ndax euh, wax dëgg yàlla baax na trop xañ na tey nit ki taxawal poste de santé boo xamante ni boo xoolee tey coût estimatif bi. ça va aller autour de deux cent millions cent cinquante à deux cent millions mënoon nga ci tabax immeuble bu baax euh, Dakar mënoon nga ci def euh, yeneen kii yoo xamante ne ëllëg mën nga fay noppalu yenn yi nga koy loué aujourd'hui gis nañ Sénégal li ñu fi ñuy investir mais moom nag dafa préférer investir ci yàlla mu doon koo xamante ne tamit xëy na li mu nekk rek nga xam ne moom lay tasaare ci ñëpp mooy njubug yàlla gi subhanahu wa taala mooy njubug suñu borom gi nga xam ne moom ci loolu la teg tànkam di ci di di ci xiirtal képp àndal ci njub googu tamit batay eh, mom lay manam ci loolu la nekk ba nga xam mom gisul aduna gis rek moy li des moy liggéeyal suñu borom ba ñu muy andal sax ci loolu la leen xirtal nga xam ne képp koo xamante ne maanaam yaa ngi wala nga nekk ak mom aduna day di ci yow Allah àllaaxira tew ci yow mom nak dafa aduna àdduna teewal àllaaxira ndax ku gis récemment rek jumaay manarul huda ji nga xam ku bi 500 millions de francs CFA ñu mubin si ça n'atteint pas un milliard tamit du ko sori parce que tey bu ñu xoolee euh, Fathul Mubin bi ñu bi muy liggéey Touba li mu fa def en matière de kii euh, ci ci réalisation travaux yi mën naa ne fondation rek liggéey na jumaay Manaarul Hudaa tey maanaam projet boobu ñu ne gros œuvre bi mi ngi jeex si ñu ñëw songaat lu mel nii qui va vers une valeur de deux cent millions encore kon dañu gis kooku ñor gu ko suñ borom ñor te ku yàlla ñor mbindeefu yàlla yi dina la ñor. ndax manam jaamu sun borom tamit fuñ ko mëni moy xol li nga ndax war euh, suñu borom daf ne aadama la gëna téral kon doom aadama la gëna téral ko kep go xam yaangi taxaw ci soxlaay jaam yi kon manam yaangi liggéel sun borom te mom fofu rek la tek tankam daal suñu mari fi nga juddoo fi nga maggé ndax li xaaron nga ko ci sa aduna waw mom mom wax deug yalla euh, léeg-léeg sax damay wax sëriñ bi ma ko gént rek manam nelaw ye yag te xóot waaye ba léegi on ne peut pas imaginer la réalité maa ngi ko may wax barki démb ma ne ko 2012 2011 dañuy kules jumaay manaaru mu toog ci kanam mir minbar bi mu wax fa ni bërëb biiree wax wax yu wax yu am solo yu yoo xam ne xañ na micro du ñu permettre ñu wax ko ma ne wax dëgg yàlla booba de dañuy ree rek nuppi waaye rek liñ lay bëgg bëgg ak liñ lay gëm-gëm moom dañ naan sëñ bee baax rek <laughs> te te te te rafet njort waaye lii moom c'est loo xamante ne kenn xalaatu ko fi woon ndax tey mën naa ne euh, sëriñ bi dafa valoriser béréb bi ndax euh, boo ko fàttalikoo 2001 bi mu fiy ñëw kenn ku nekk si ñun sa rêve moo doonoon boo amee sa ñaar dërëm wala soo amee sa salaire li ñu lay njëkk wax mooy daalal di wut kër Dakar wala Touba wala Njaareem dem dëkk fa jàpp woon jàpp ñu woon ne mën nañoo valu mën nañoo dem tey ba fii mën a mel comme Touba wala Dakar wala feneen mais sëriñ bi ñëw non seulement yar nit ñi si diine yar goo xam ne tey mënuñu leeral lépp. ndax maanaam kennal yàlla ci la njëkkee ñun fekkoon ñu ci ay tuuru ay rab ak kenn xamul mu génn ñu ca ci indi ñu ci ak kennal suñ borom ba pare xamal ñu nag neñ aussi fii ngeen dëkk mën ngeen koo defar mu doon dëkk ni dëkk yëpp mën ngeen fee dund jaamu fi yàlla nekk fi di fi tedd ak seen njaboot kon nga xam ne waxu non seulement waxuma côté diine bi spiritualité bi mais côté euh, maanaam euh, exode rural nga xam ne moom dafa jàppale état manam tay dafa jappale état ci walu liggéey ndax bo xolé tay ñun ñi ñëpp tey mo moo ñu retenir fi ñu tok dem ba gëm ne kat war nañ fi mëna tabax ay bâtiment war nañ fi mëna tok am fi suñu internet war nañ fi mëna tok am fi suñu électricité mëna fi tok jaamu fi yalla kon lool moy liggéeyam daal si si si si gàttal bi réalisation bi nga xamante ne fi lañ taxaw tey di ko def euh, daf ñu rappelé lu bari buñ waté gannaaw tuuti eh, ci ci luma ma euh amna na ci fogna buñ ko xayma xeyna digënté 2003 2004 lay wara doon ci Touba nga xamé jamono yoy sëñ bi mi ngi ci kërëm gi nekk tay ci ci tenut nohim xalum nga am bis muy genn tàkkusaan di doxantu ñu ak mom lu yàgg na ñu dox ba aksi ci héliport bi ñi depp mu melni ni dañuy waxtaan man ak mom ba si yag sama xel eh, nek ci wax ko ne ko dal limay neuseur nësër neuseur ñun maawul xayaat santé moy dem ba am hôpital bo xamé ndax bobu sax man ci sama wax man case de santé la jàppoon wala poste de santé bo xamé ne daanaka bénévolat lañ fay def ñun groupe maawul xayaat santé fay nek di fajj nit ñi te duñ fay dara loolu señ bi dal di ree nama ah señ Ousmane loolu de baax na sa yitté de soufé na lool té nga wax hôpital ndax loolu day mi ngi ci suñ kanam te dana am kon nag tey ñu gisee lii dafay mel ni wax yu nitu yàlla moom jamono jam la koy wax yow boo ni Cheikh Omar waxee léegi rek dafay mel ni da ngay ree rek te xam ne sa sang bi dafa baax tey am yéene waaye loolu moom man jamono ja yooyu sax bu ma doon wax réalisation yooyu dama doon jàpp ne Touba la waaye xalaatuma woon ne mën na nekk ci àll bi kon tey suñu doxee ba 2018 ku baax ki sànc lii day sunu wax sama xel day delluwaat ci waxtaan woowu ak moom nga xam ne moom mébétam weesu na sax lii ñuy def nii léegi rek maa ngi ci ñu ngi ciy waxtaan ak moom mu naan fii de jàpp naa sax mu gannaaw am nañ barab bu yaatu la mën nañ jàpp ba lii sax ñuy taxawal tey niru poste de santé mën naa nekk ba nekk benn ci service yoo xam ne ci hôpital lay ne. te loolu mu ngi ci sunu kanam dem ba waa bitim réew boroom xam-xam yi professeurs yi ne foofu sax di gàddu matériel yu am solo ñëw di leen fekk si fii ci liggéey bi kon loolu ku la waxoon loolu nga gis lii samp tey kon su la waxaatee li war ngaa jàpp ne loolu da ngay ñaan gudd fan fekke ko rek waaye mi ngi ci suñ kanam kon sant yàlla la bu baax a baax a baax a baax kon ni ñu ko waxee woon ci consultation médicale yi dañuy rafet njort ne ni ko ingénieur bi waxee léegi Cheikh Omar donc durée des travaux neuf mois huit mois maximum. donc rafet nañ jort na déwén incha allah bu ko yàlla dogalee fii la ñuy defee consultation médicale yi. incha allah incha allah rabbi jërëjëf sëriñ Ousmane euh, ñu mën xam euh, lan mooy opportunité wu euh, poste de santé bi ndax fii gisuñu fii benn kër à peu près boo xoolee ci kanam ci soow ci bët gànnaar lu dul soow dëkk bi daal lañu gis ay ay ay quelque ndax post de santé bi priorité la fii ci dëkk bi. waaw sëñ bi loolu danaa ci sawar a tontu ndax. Euh, bu ñu fàttalikoo tuuti 2014 euh, lañ commencé def consultation médical fii dëppale woon ko ubbite jumaa ji euh, waaye rapport yi nga xamante ne moom lañ ci am diggante 2014 2015 2016 ba 2017 mooy bi ñu mujjee def nii ne dañ ko jël ba mu agsi ci année 2018 janvier 2018 bi consultation médical boo xoolee rapport yi population bi wuy si ci ci ci ci ñëw ci consultation médicale yi boo koy seet. mën nga ne sax daanaka population Mbarasaan représenté wu ci 2 pour cent wala 5 pour cent matu ko kon 95 pour cent yeneen yëpp ci village environnant yi lañ jógee boo doon xool statistiques yi te loolu ay milliers de personnes lañ consulté ay milliers de personnes ba ren sax li nga li ñu koy def def benn journée ñaar ay milliers de personnes lañ consulté ci ñaari fan yooyu te besoin bi day gën di accroître boo xoolee 2014 ak 2018 liñ fi li fi li fi besoin bi yokk ci ci ci wàllu yittewoo soin dafa jéggi dayoo te ñoo ñu jegewuñ fenn fu dul ci arrondissement bi nga xamante ne mooy lañ nekk ni ak communauté tey ba mutu fa donc village xëy na nii nii boo taxawee di seen doo gis waaye nag village environnant yi yëpp ñoo yittewoo li ñuy def te qualité soin bi nga xamante ne moom la Maoul Hayaat santé di indi ci faj mi ci nga xamante ne amaguñu woon poste de santé sax di indi loolu tey nañu imaginer su demee ba bâtiment yi taxaw ba équiper ko ba mu dëppoo ak jamono nañu xalaat li fi war a mën a ñëw yëpp ci ci ci population kon loolu rapport yi moom mi ngi fi te gis nañ ne boo épluché rapport yi jàngat ko expert en santé publique yaa ngi nii taxaw euh, dinañ di nga xam ne waxuma la poste de santé waaye barab bi sax yittewoo na lu raw centre de santé ci ci rapport yi nga xamante ne moom lañ détenir ci Maoul Hayaat santé kon c'est une grande opportunité te mën naa ne sax ça arrive à son dafa mel ni daal sëñ bi moom Euh, moom daal gisinam dafa dafa dafa dafa dafa kéemaane dafa dafa kéemaane ndax ci waxtu wi nga xamante ne ci la fi soxla si gën a amee solo ci la ci lay ci lay tàmbalee yu mel noonu te lépp nag ci njëriñal population yi la la jëm ndax moom lii kenn ku ci nekk xam na ne <laughs> sëñ bi du ko jariñoo amaana njabootam sax xëy na lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy yaatu yaatu duñ ko jariñoo waaye yitte ji mu am ci ñëw tabax ndax bu ko bëggoon a jariñal ñeneen xëy na dina dem ba Touba wala jëmmal loo xamante ne bëgguñu ne sëñ baa ngi liggéey mënoon na ko ci bërëb yóbbu waxee ku romb xam ne lii diw moo koy def waaye ñëw bu fii fu làqu fii fu sori fii te population yi fi ne nekk population yu diminué xam nañ ne fii nit ñi ci mbay lañ yëkk seen lépp te mbay xëy na ñetti weer la bu jeexee daanaka jafe-jafe yi am waaye ñu indil la loo xamante ne tey soxlaatoo daanaka ci yenn wàllu plateau soins yi soxlaatul ngay dem ba njaareem soxlaatul ngay dem ba foo xamante ne ay kilomètres di mettre sa vie en danger sur place mën nga ko am à des coûts moindres wala sax gratuitement kon loolu mën naa ne liggéey bu ko gën a kawe gisuñu ko te opportunité bu ko gën a am solo amul kon loolu moom opportunité bi waxatuñ ko waxatuñ ko ndax consultation médicale gratuite rek firndeel na ne barab bi soxla woon na lii Euh, sëñ Ousmane euh, ndax euh, ni nga ko waxee léegi couverture maladie universelle dafa xew ni ñaa ngi koy wax waaye lii bokk na ci xëy na li yombal paj gi ci ñi nga xamante ne jotewuñ ci woon waaye bu ñu waxee poste de santé wax évacuation ndax bërëb bi jàppandi na ci wàllu infrastructure routière ba ci wàllu évacuation xëy na mën na bañ a indi jafe-jafe. ah loolu kay wàllu évacuation kay da ngay dawal sa bët tuuti xool <laughs> l'autoroute à péage à moins de cinq cinq minutes bi fi ñu taxaw nii. matul 5 minutes té daf lay yobbu ba Touba yobbu la ba Diourbel yobbu la fenen donc grand grand grand centre boudé dé Bambey aussi rapidement nga joindre Bambey té damay rafet ndiort na sax plateau technique bi am fi danaka bo démé bay évacuer ni gëna gatt fi nga évacuer Diourbel lay doon wala Touba té lolu fim nek ni bu infrastructure yoy an paré japp na né jëlé fi malade même lu danger lu nek nek en danger même boudé jigen bu travailler sax bala mo nek phase expulsive dana aksi Touba ndax autoroute APA péage dina jappandi té ci walu projet yi tamit <laughs> xalaat nañu équiper poste bi en ambulance lo xamante dina fi né disponible 24 heures sur 24 malade buñu xol fi té te prise en charge am laaj ñu yóbbu ko hôpital ñu mën ko rapidement euh, évacuer sur sur sur hôpital ndax infrastructure routière yi mom permettre nako fi mu nekk nii donc fi nekatul ay piste léegi goudron baa ngi nii jege na trop autoroute à péage baa ngi nii donc lool moom sur ce plan yaakaar naa ne amul amul amul amul amul luñ ciy xalaat incha allah te pour revenir léegi ci li nga waxoon ci wàllu CMU bi xëy na sax gannaaw na fay sëñ Tayru mu gën ci développé ndax moom moo gën a nekk expert ci wàllu santé publique ni man waaye boo xoolee lii fi mu nekk participation la bu énorme boo xamante ne sëñ bi mi ngi koy def ngir jàppale ko état presque lii nii rôle état la woon waaye sëñ bi moom vision Euh, dafa dafa dafa dafa jiitu lu lu bare bare bare bare bare kon tey euh, état ci boppam moo waroon a ñëw sax sant ko sant sëñ bi ci lii muy taxawal ndax lii bu àggee ak jàmm ci programme CMU sax dina ci jouer par rôle boo xamante ne dafa kéemaan ndax CMU objectif am maanaam cible ñi nga xamante ne moom la ciblé mooy population yi démunie yi ñi nga xamante ne seeni moyen demeewul noonu te boo xoolee fii ni ma ko waxee woon léegi ñu ci bëri ci wàllu mbay rek la ñuy dundee ay ay seen seen am-am demewul noonu kon mu mel ni sëñ bi tey dafa dafay déplacer seen mi ñëw indil leen ko mu gën leen a jege gën a jàppandi ci ñoom te état laaju ci état dara te xëy na organisation bu ñu demee xëy na ba lépp yemb niñ ko xalaatee taxawale dana jàppandi jàppandi goo xamante ne wax dëgg yàlla waxuma la programme CMU bi bi bi bi bi état di doxal sax waaye buñ ko appliqué fii sax mooy gën a mooy a jàppandi kon mu mel ni fi nekk ODD yi objectif de développement durable yi nga xamante ne horizon 2030 sëñ bi moom jël na ci avance bu sore sore parce que pour développer terroir il faut que infrastructure yi nga xamante ne de base yi ñuy wax infrastructure de base war a nekk loo xam ne population da ciy jàppandi ndax tey soo bëggee liggéey loo baykat bi bëgg a nawet jot mu bëgg a bay su wérul du mën a bay toolam donc tey lii opportunité la pour même ñi fi nekk sax ci gox bi seen xel war naa gën a mën a dal ne tey man lu lu ne ñux ñux sama yaram rek war naa am fu mu mën a daw ñu faj ma ma delluwaat ci samay tool te mën naa indiwaat yeneen piste de développement ndax ku gis centre de santé fii dégg naa ci projet yi sax yoo xam ne ay marché ay école ay CM ak et cetera donc fii presque pôle de développement la nar a doon te loolu ñi koy def nag faaw ñu wér. donc fi xeyna <laughs> ñun ni ñuy wax sax li suñ wax ñi ngi xalaat sax hôpital inshallah nga xamé spécialité yi ne Touba ne Diourbel ne fenen, mën na dem ba am fi donc ngir ngir jappalé état ci politique sanitaire am a'udhu billahi min rajim bismillahirrahmanirrahim إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته يدعو عليك ويهديك صراطا مستقيم وينصرك الله نذر عظيما هو الذي أنزل نزلت زكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانا Wa inna sama wa diwalar. Wa qadalla mu'alim an Bismillahirrahmanirrahim. Isa sam sukuirat. وإذا النجوم انقدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العزار غطلت وإذا الوعوز عزرت وإذا البعار سجرت وإذا النفوس زوجت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 أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ودعي صدق الله العظيم أعوذ بالله من الزيدان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الزالعات لهم جنات الفردوس نزلا إن خالدين فيها لا يبقون عنها عودا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنبذ البحر قبل أن تلفت كلمات ربي ولو جئنا بمثله بددا قل ولا يشرك بعبادة ربه أعدا بسم الله الرحمن والدعاء والليل إذا زجم ودعك ربك ولا سوف قرب بوكا فترضى صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك وراودت امرأته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الابواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وغلقت الابواب وقالت نهيت لك قال معاذ الله وغلقت الابواب وقالت هيت لك نهيت لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نعم Refu سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سانا إلهي بالمناجات وابدا أغنى يدي عن غات دل علي علماء وأولياء من لا يسال قوة وأولياء قصيدتي فاقت قصائد الكرام وليتقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناسيا واقصى الملك ما تواجه النصارى الله لي بلا إله إلا الله يا قل عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد بسم الإله والرحمن والرحيم قاد لي أمان الحمد لله الحمد لله هلا كتاب ما سفي المصيب لتاب سيدنا سيدنا سيدنا محمد خير الوران من قاد لي قدمته وصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي من له أقلام سيدنا سفينة المقدم عند الذي تسكو لدي قدم محمد وسيلتي وجنتي عن الأعاد والأسى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الآل والمال بتكرار آسى وقصدي خدمة تقر عين نبي بها كما تبر نويت من سلام خدمة تزر مصطفى بكفه تماسر حضرمت من رب البرايا خدمة liman bi jaayi kafaani sadman ahmadu ala xuruji min darar wa kulla suin wal anai wal qarar askuroon sukuran yajuru saydan bisri wala yajuru nawi kaydan hamdan wa sukuran la sama burora رب الورى وساس عن قرورا فكنت لازما لزي مقدما مصليا بها على من قدم مرتجيا كوني قديما أصنع وأن أفوز بالمقارن أصنع ملتمسا من مالك أن ينفعل بها لسين يريد أن ينتفع جل الله بجاه المصطفى جلال بجاي المصطفى بجاي المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نصما مباركا يا قياسابا كما لسيك بدني أصابا أرجوسة عابدة لله ما كتاب ورسول الله ما كتاب ورسول الله سميتوان سميتها سميتها جالبة المراقبين سميتها جالبة المراقب في أجل كأجل الراقب قد سربتم للمراد قائلا ما سفاء بيتا أو خائلا إن الله والملائكة يصلون على نبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك وخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك musaliyan musaliman ala akrami xalqi ladayka xayla ku sopp sëriñ saaliw mbakke ku mu booye boo tëddal na la wal ci moom ku ko xam boo wayul ka ñaana la ngoy sëriñ saaliw sëriñ Saliwa ku mu fal booya boo te dana la wal lii ma xam ci moom ku ko xam boo wayul kañaan la ngoy amitu rabbal alamin cant gu àndu tag la neen musaliman alal amin te teg te xaadimu rasul kuy murit tey na jooy la maam sunu sang bi dana bu naam bur gi sante sëriñ saaliw yamal xiyam la teew xamal jooy naa ko jooy xol yi foor man ñàkk naa wurus foor jant la moom moo tax mu nga yow xamal sunu cër yi weet na xol yi weet daara yi weet na kër yi weet yëgal ni tey nii fépp a weet kuy wéetalee ti amatul miski di ñoom ñëpp a ko jooy jërim yaak faqiir yooyu gone ñàkk ma ñaaju jooyu ku leen di woo di naqamul goney tey jii de ñàkk nan ma ñi kasaaka ñàkk nan fu ñuy jëlee te waajun mel ni sëriñ Saalihu fu ñuy jëlee te waaja dan fa bi gone katam taman daarul alim daaru manaan waa tuuba daaru minal amul quraan دار الرحمن جعلنا للبرم جرول دار الخدوس توبا قلكم حسن الماء دار السلام يلا نجي سخت سلام جعلنا للبرم تنزيل كسب سنغب سيق مدوم بكما والخيان جعلنا للبرم تنزيل دار الخدوس توبا قلكم حسن الماء دار السلام يلا نجي سخت سلام jaali naa leen borom tansil waa ndi ndeeg Tuuba belal daaru muxtee ki njàppandal jannatu max waa ki ngibingal jaali naa leen ki leen jubal may jaale waa gotag lagan ka sanc ndooka wa xaban saa yi boo ñaaro ngeejaan moo sanc yëndu adduna yaaka mën a wor xamoo lu baax xamoo walóor lu fiy taxaw yow danga ko war saw melo kaan amul solo Seex Saaliw wetal ganu sa gi daal jaaxal nanu yàlla nu xam nga dem baru fu ñuy jëlee ci xel mu dal sëriñ saali woonu dàq man yàlla ak yonente nii bégal wa axir daxwaana alhamdulilahi rabbil ñu ngi tub bu baax jërëjëf أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين wa man tabiahum bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ila yawmi ñu ngi sant suñ borom subhaanahu wa moom mi ñu bind melal ñu kattanal ñu te kenn fekku ci mu yell ci ñoon ñu wëlbati ko ñu nit jaamu ko sellal jaamu ga joyal ko moom képp ndax ñu wéete woon ci ni ñu amale ñu nit ñu wéetale ko noonu ci jaamu gi ñu koy jaamu bañ ko bokkaale kenn wala lenn wala fenn ñun ñëpp ku ci xool sa jëm kaw ba suuf wër na leen ni kenn fekk sa borom moo ñu fi indi yow yëgoo ba mu la fi indi kaneen yëgul moo la fi ba ci coobareem ak kattanam bi say ñëw moo la fiy jëlee te du tag du tàggu kenn kon nak wajal bis bobu jotna di julli ci Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam mi nga xamni ne ñu xamal lolu ndax xam lolu moy tax jaruñu ak ay ñoñam di mbokam ya ci deret ba pare gëm ko ak sabam moy gëm te jamonoonteeg te de ci ngëm nga radiyallahu taala anhum ajmain lolu nak tawfiq gu mag la ku bax gëm ko téye ngëm nga ba sa ruux tàqale ko sa jëmm tawfeex suñu borom la te loolu mooy mérite gëm gi nga ko gëm ndax ñoom mag ñu baax ñoo ñu toppoon rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam saa suñ leen tuddee dañu naan radiallahu taala anhum ajmain te ci biir ñooñu ñu tedd ñooñu nga xam ne raw nañ te kenn dootu leen dab ci jëf lépp a ca woon dinañ ci ñëw ci biir ndax ndigal liñ jot ci waxtaan ci taalibe te xeebu ci lool waaye di ci jéem ndax ndigal li ci rot kenn mënu ko waxtaan te tuddoo mag ñu baax na di ñaan suñu borom yàlla ba mu dañ di dotti leeram ak tawféexam ci maulana cheikh ahmad bamba xaalim rasul mi nga xam ne ab liggéeyam moo waral yëg-yëg yi tey ñuy jàng alxuraan ñu koy yëg te yombul ñu jàng ay xasidam ñu koy te yombul te ñi ci ëpp di ñi ndaw ki tooge jotaayam ñuy ñaan suñu borom fiq aw fanam wéral ay cërëm ba limi naal ci l'islam ak ci yoon mu àggale ko ci gën gee anam moom nag cofeelam akub liggéeyam daa jiitu mu toog toogaay bi waaye la ma waxoon sëñ bi benn laylatul xadar ni ko dangaa dem ba tey lépp ba pare jugoo ci melaw kuy wut moom cheikh montaxa loolu moo ko dal dem ba tey lépp ba pare des di yor melokaanu kuy wut ndax nag yàlla coobaram dafa màgg te du luy jeex lu dul jeex nag loo ca am rek dese ngaw xuusin doon naa wax ni yàlla mooy ndox moom loo ca gën a naan di ca gën a mar mooy ñamboo loo gën a lekk di gën a xiif kooku nag kon yegg bay taxaw déedéet yegg naa ci yàlla taxaw naa déedéet ku ko wax rek xamul yàlla wax bu rabbaka xata yaxtiqal yaqin yaqin jojo du kóolute gu ñuy ag di taxaw dedet moy rek sa ruux tàqalikoog sa jëm nga xamanteni ni jëf mënatu la am ndax kër ga du kërub jëf këy fayiku la waye fek ñu fi di jëf di ñaanal sun sang bu tedd bi Cheikh Ahmadou mbacke maul Hayaat sun borom yagal ko fi wëral ko katanal ko ba naal yim am ci l'islam l'islam rek lay wax mu ag la ci ko ci gën rafet anam ndax mo am bu jaamu yàlla ci ay ibaadaat sa digganteeg sa boroom waaye moo ëmb tamit di jëf lu baax ngir luy jariñ jaami yàlla yi te ñaar yooyu ni ciy doxe ñëpp teg nañ ci seen bët di ñaan ñu nit suñ boroom saxal ñu ci keppaaram la keroog suñ ruux di tàqalikoo ak suñ jëmm ndax taarug jëf ah sëñ tubaab moo ko wax ca nax ju xadaayil xaaj ma ngi ca àggale ga mat ga nen taarub jëf ma ngi ca mat ga tàmbali yomb na lool àggalee jafe yàlla nañ egg te àggale di leen tuubalaat bu baax ci kàddu yi ñuy yëkkati di waxtaan ci mbir mi nga xamante ni mooy tax àdduna jag mooy tax ëllëg bis penc mu jag mu di ak taalibe ak taalibe weesuwul ñun ñëpp xam nañ ni suñ borom moo ñu amal ba mu amalee ruux yëpp dajale leen wax ne ndax duma seen borom ñëpp a tontu woon ne ahankay yenn yi ci coobare ñenn ci ci sañ ta bañ waaye ñépp ni woon ahankay nangu googu ñu nangu ñu jël ruux def ko ci jëm indi ko ci kaw suuf mu fekk fi ñeenti noon benn noon bi da koo ëmb te loolu ëmb jekku na la benn noon bi da nekk ci biiram bi ci beneen noon bi ngeen bokk nekk ci biir benn noon bi yeneen ñaari noon yi nekk sa biir muy sàcc boo ubbuwaale noon bi la ëmb mooy àdduna yaa ngi ci biiram noon bi nga nekk bokkal ci biir mooy seytaan yéen ñaari bokk nekk ci biir àdduna te mag mag la fopp nag fekkeloo fekkewu ñaan ci sun borom mu saxal ko fi moo la fi jiitu te moo la fiy mujj ndax dafay nekk ba bisu dekki ba waaye ñaari noon nekk sa biir muy bànneex ak bakkan ku mel noonu fu muy muccee kuñ wëra ba noon nan ngay mucce ci noon yoo xamante ni ñoo la ëpp kartan fop kon axakay gële donte dëgg la woon ci ñi ëpp bi ñu wàccee kaw suuf noon yooyu dina leen fàtteloo seen nangu gañ nanguloon seen borom subhanahu wa taala te mooy taxa jariñ jariñu ndax lu way am ci tedd nga bu ko boolewul ak imaanu billah bisa ngi ñëw mu rëccu lu way ñëkk ci tedd nga tem iman gu mat sëkk bu ëllëgee kuy rëccu du ca bokk te ñooñu dindi sa iman képp mooy seen yitte ba tax na bi nga wàccee ci foofu ñooñu gaw la wër la ndomba nga soxla woo ku yeewaat sa yitte fàttali la sa pacte bu jëkk ba woon ba nga jóg wan ginnaaw àdduna waa ginnaaw bakkan wan ginnaaw ba bànneex mucc ci seytaane ma suñu borom subhaanahu wa taala doo ko booleeg lenn ki matal loolu mooy murit bi waaye ndax kartanu boppam mën na ko caa yóbbu déedéet yitte ja rek sa kartanu bopp mayewul ko yitte jóg bëgg loolu sa kartanu bopp dala koo mayul moo tax yàlla ci mbaaxam xam na ni fi muy wàcce am nañ fi noon yooyu dinañ dox seen diggante ak dox jëm ci moom mu jël nag ay jëm yoo xam te moo leen di waajalal boppam bañ mucc ci ñooyu moo leen di dëpp kartan dëpp leen tawféex dëpp leen leer wàcce leen ci nit ñi te léeg-léeg bu leen di wàcce rek mooy dem nañ ba nit ñi lap ci àdduna ba daanaka seenu mucc jafe fu muy wàcceeb yonent rek fekk nañ daanaka ñu ngi li ñu tubaab di wax au bord du chaos nga xam ni buy yeex tuuti rekk ñuy sàng mu jël jëmm ju mat joo xam ne bu ko wàccee seen biir rek gis gañ koy gis mooy yee ci ñoom yitte ne kat ndekete am na melokaan yoo xam ne wulu mara war naa ne boo ko nee jàkk xam ne kii ma nga fële yow yaa ngi fii loolu yee ci yow yitte nga jóg bëgg ni nag kii fam ne am naa xemmemte fu dem fa loolu moo waraloon yonent yi di wàcc alayhi salaatu wasalaam waaye tamit moo waral nitu yàlla di wàcc biñ demee ba yonent yi nubuwa gi tëju kon ku fi musa ñëw rek am yittey jëm ci yàlla ci murit nga dox mooy am nga nammeel ci jëm ci sunu borom subxanahu wa waaye nga koy dimbalikoo nag jëmm ju yàlla tànn mel dëpp ko kàttanam mu xam yoon wa dox ba yegg fa naan ca mbir ya ba pare amuk matu dikkaat ba pare man na japp sa loxo delo la fa bu boba nak bu la sun borom dimbele ba nga dajje ku mel noona sa am nga tawfiq li motali tawfiq ga moy nga mel Melokan wuy tax nga mana jariño ci jëm jojo melokan yi sunu serigne leral nañu ko ba mat melokaani sëriñ ki amub sëriñ ba pare daanaka jaratul nga cey xóot ak moom waaye lu yomb xam la gis nga ki yàlla dëpp leeram yomb naa xam boo ko nee sut xam ni kii bokkul ak ñii boo ku jaxasoog moom te muy dëgg bu fa yàggee boo ko xamoon boo ko gisaatee xam ni kii daj na lu gaa yi daju yooyu nag ku dem ba am ci yaqin ba téye ko dafa am melo mooy am ndax jamono doy na waar doy waar yoo xamante ni di nga téye sa lu baax lool lu sell ku demul fenn wala ku téyewul fenn ñëw sobentalal la ko ba nga wàcce ko te boo ko wàccee moom ci boppam du la jëmee fenn moom moom ma la ko wàcciloo amul fenn fu lay jëmee ndax képp ku wan ginnaaw yàlla faneen foo jëm laa xamul ndax foo jëm rek yàllaa moom foofa koo jëm yàlla moom kooka ci loo jëm yàllaa moom loola kon jëm ci yàlla moo gën a wóor boo demee yàlla dimbali la nag ba nga tajeeg jëmm jooju nga xamante ne yàlla dëpp na ko kartan dëpp ko leer ba noonu yooyu moom mën na la cee musal xam na yoon wi xam pakk yi xam jafe-jafe yi xam ker yi nga xamante ne ñoo lay dog nga xam ne di nga àgg ci ker defe ni mooy dëkk ba toog mu féex nga naan fam ndox yeeslu nar a toog mu la deet jógal àgg góode fii neex la lu waaye du dëkk ba ki xam loolu boo ko daj dajee li la ciy jëkk a dimbali mooy bëgg gi as siq fi mahabbati cheikh nga xam ni bëgg li muy dimbalee nit ki cib xarit sax ngir xarit ga wéy cofeel ga ngay am ci moom moo koy dëgëral moo koy dimbali ndax di nga nemmeeku lu la jaaxal ci moom surtout bu dee nitu yàlla muy yonent yi ak kum ci mënti doon ña ànd ak yow ku ci ànd yow xel rek ab doxam bu yegget ab doxam rafetul am na gàkk am nay gàkk caw doxinam bu dee nitu yàlla rawati ci ndax yonent yàlla dina ko dimbali ba moom dina wàcc ba méngoo nit ñi ndax dañ ko war a roy waruñoo wuuteeg moom nitu yàlla sëñ saam leeral na ko bu baax ni yonent day wàcc nitu yàlla day yéeg dinga nekk ak nitu yàlla lu bari lënt la ci mbiram lu bari lënt la ci jëfam bëgg ga mooy àgg ci dootoo gis sikk ci moom mënuñu laa wax lu tax nga sikk ci moom ku ci nekk ak sa maam rek dinga xam ne ku bëgg dootoo gis sikk luñ maam da ngay gis luñ waxal sët ba mu ni du moom di nga gis koo xamante ni day bëgg mbir ba ci suñ politiciens yi di nga ci gis ku bëgg kenn ba nga xamante ni lu waaw koo ko def rek noona la da koy défendre ba tëdd waajuram sax bu xasee koo ko mu àttana dogoog moom ndax ndax ndax bëgg gum ko bëgg cofeel googu man jàpp naa ne fu mate yeneen ya ca des jëpp day daal mat cofeel bu matee mooy tax doo fa gëj ndax loo bëgg namm ko te looy namm di def yitte pour di ko gis te jëmm yooyu saa soo leen di gis di dolli ko ci yàlla di tëbb moo tax cofeel googu am solo cofeel gi mu matee faw nga koy jox ndax dangay bëgg lu tab banexam ki nga bëgg dëgg boo koy jox doo xool moom en retour luy jóge ci moom di la jox moom na bëgg rek da nga ci gis koo xamante ne soxna rek lay bëgg attan ko jox oto attan léeg-léeg ñu bari ñu ngi ci prison yi sax soxna suñu bëgg leen ko yóbbu ndax dina leen di teg ñu koy jox ba amatu ko ñu jël yëfi jàmbur di ko ba la leen cay dal euh, dal leen ci mais ak bëgg moo ko leen ci yóbbu waaye nag booy bëgg bëggal yàlla baa nga bëgg waaye yàlla ndax bëgg yàlla waaye yàlla kat mooy bëgg yàlla bu la yàlla dimbalee nag kon ba nga dajeek moom del góor-góorlu ci sag bëgg bëgg nag ñaar la am na boo xam ne xusuus la yàlla jëlu bëgg rek tàbbal sa xol defoo ci benn effort nga xamante ni yàllaa la dimbalee ku baax ci ñëw dugg sab xol doonte lañu doon wax ci moom sax nekku ci woon yu bëgg nga ko loolu taw féex la defoo ci benn effort ndimbalu suñu borom nga ci am ak bëgg gi nga xamante ni dañ koy cultiver bëgg sëñ Babacar bi mii sociologue la ñëpp ñi ko jàng ñëpp xam nañ ni même lu ci doon l'amour des arts yaa koy cultiver am na ñoo xamante ni tey bu ñu tegoon fi benn tableau d'art mu jàllale leen ay milliards yow buñ boo ko romboon fee ñu teg ko doo ko gestu boo ko foroon tey doo ko da nga koy sànniwaat. am comme jàll américain parce que da ko fréquenté ba bëgg ko xam valeur bi kooku mooy bëgg gu ñuy cultiver bu la yàlla dimbaliwul nag jox la bee bi ci des yaa ciy góorgóorlu te am na ay méthodes yooyu def ngir liggéey ci bëgg googu maanaam di ko frekante gis nga jëmm ju tedd ju rafeti jikko baax bari njariñ ba mel ni gaa yu baax yi boo leen di frekante faw nga bëgg leen ndax njariñ yay balle ci ñoom di ñëw ci yow mooy tax cofeel ga saa su ne di suuxatu di màgg waaye gëj ga nga fay gëj seytaane da lay jekku di sànni sa xel ay mbir di la ko gën a sori lool fu buure jëm ci moom sax mu tàyyel lool la di la xëcc wala saat mu def loola ñaawteef ba nga ragala teeg dem seen kanam yooyu yépp ay pexeem la waaye fu ñuy sete ku tilim du fa ragal fañuy ñuy bo tilimé bu fa ragal dé fa dem té aduna bi day melni hôpital bu magla gaay yu bax yi ñoy médecin ku wop nak ni duma sété médecin gaawal sag dé rek nga def té wallahi xons bi laa ndax dégg jëmm de méttiwul waaye dégg ruux yow sëñ Mohamed jërëjëf sant nañ bu baax ci waxtaan bi na solo lool te tëbbaat nañu bu baax fàttaliwaat nañu bu baax na bi ko ku tedd ki di sant ne nañ ko waxtaan ak taalibe eh, man dama xaw a deltu ginnaaw eh, jiital sëriñ muhammad ndax booy waxtaanee dara day fekk nga dund ko waaye man bu ma setantalee sama jëmm damay xam ne sama taalibe sama diggante ku baax ki tàmbaleegul sax bay mat ndax nit mën nañ laa gis ngay takk seen digg ñu ne sa waay dafa amuk taalibe ñu gis leen nga woyof ñu ne dafa amuk taalibe te fekk ne ni ko ku baax ki waxe ci waxtaan taalibe yombul taalibe man de bu ma seetantalee mag ñi nañ daan jëflanteeg sëriñ Touba ma xam ne man sama jaayante ku baax ke baax rek téel ma ko boppam waaye leer na ko ne matuma ko taalibe man man loolu laay dund man matuma ko taalibe ndax bu sëriñ Touba mësaa woote ne buñ xëyee nañ ñëw dañuy fanaan dara du am seen kër te amul kër sëriñ bi man de wax dëgg am na lu ne sama kër te kër sëriñ bi kon sama taalibe tàmbaleegul sax bay dem fenn ñu jël sëriñ bi teg ko ci seen kanam tegin woo xam ne wóolu goo xam ne dem na dayo te loolu day xuus dugg ci biir tasawuf lu sëriñ saam doon wax lu naqare waxtaane la waaye taalibe yombul ñu gis la ngay jëf ñu yaakaar ne yaay jëf fekk jëfoo sëriñ bee sëriñ bee baax rek waxuma ci baatin sax waaye da ngay toog sëriñ bi dugalal la dara ci sa compte ne la lijjanti ci nangam nangam nit ñu gis la ngay lijjanti ñu ne sa waay day jaayante rek lu mu am jox sëriñ bi fekk ne sëriñ bee la dugalal dara man laay wax de man sama bopp sëriñ bi daf may dugalal xaalis na ma jënd ci béton so woyee gaay jënd ñu ne ah bàyyi na lu mu am jox sëriñ bi fekk na xaalisu sëriñ bi la wo dara jëfo dara waye ci mbaxam ak woyofam lañu ñu man lolay laay dund man sëriñ bi ci mbaxam ak woyofam lañu ñu ci biiram waye matuñu ko ay talibé yalla seede man lolay laay dund man man bay fari matuma talibé ku bax ci ndax dañoo jàng histoire am luñ ci xam tuuti xam nañ daan toppee nitu yàlla yi ñu xam ne sunu topp des na koo xam ne ñaari dalay wo sax ne la ma ngi jégguli ci waxtu wi ma lay wo te mo la mom ndax yaa ko yaa ma moom jox la sama bop aduna ak alakhirah tekkuul ne yaa ma mag mi ñuy laaj di laaj di laaj di laaj señtu leen mujjé wax moy kuy saxal karaw bu ko sobé wat ko ay señ bi du laaj kenn du laaj kenn kon ñun dañoo ne ni rek mu ñuy dimbalé yalla sédé nako waaye nag yàlla na sax ci duñu dimbale yàlla na sax ci duñu bëggal boppam te ban ñoo topp ci sunu doye sëriñ bi bëgg nañ lool doon yi taalibe waaye mënuñu yàlla seede man mënuma man doon taalibe ndax rekki tànneef ndigal saa su rotee bëgg gi moom fees na dell moom yàlla defal nañu ko te mbokk taalibe yépp bëgg nañ la ko tedd gi waaye nag àdduna njatt nanu ba nañ war a doxee ci yoonu yàlla ci diggante sëriñ ak taalibe yàlla seede na des na waaye nag li ku baax ki wax ne bëgg gi fees na xol bi dañuy jéem li ci def suñu borom mottali kon ñu ngi ñaan suñu borom mottali ñu te teel ñu boppam te boo xoolee état ni muy doxee nga xam ne képp kuy ŋàññ ab jaayante boo xoolee état rek gis nañ ñëpp dañoo jaayanteeg ki fi ki fi tekk ki fi toog addiya kuy liggéey ci senegal yaa ngi joxe addiya mooy impôt dañ la koy dagg nga di ko joxewaat mu koy jëfandikoo ci nu mu ko soobee te ñun ñëpp dañoo jaayanteeg moom ñi prêter serment ñii dem def ay contrat signé mën a liggéey ak moom te bu ñëwoon fii bu ne bu bu ko sooboon ñun bu ko sooboon ñun ñëpp dañuy génn biir jumaa ji ndax moom mooy boroom réew mi ni ñu ko jëlee fal ko moom ba mu am sañ-sañ ci ñun am sañ suno ci sunu alal ak ci sunu deret yalla non lay falé nit mu am sañ ci nit ñi ak ci sen deret nit yalla ray na nit dara fekk ko ci am sañ-sañ ci sen alal waye ñun niko señ Abdou job di waxe desitu dépenses yi moom la ñuy joxee addee bu ñëk desitu addé yi mom dañ doon joxe dépenses ñun nak bu weer deyee dañuy lijeenti lepp man lay wax man waye yeen yeen a ngi dunduk talibé waye su weer deyee la am damay fay sëñ Diop lamako amel joxe dépense bam mu wóor ma ne wi moom saa su soxna ci xey dina dem marché suma ma 1000 francs nak ma lamb jox sëriñ bi buñ nan la da nga am taliba ngay yaawi di def ni nañ wàcce wat suñu bop xamné ne tàmbaleegunu sax doxunu man astaghfirullah man doxuma tàmbaleeguma waaye yéen yeen a ngi sant nañ nak bu baax bañu yalla dimbalé dimbalee jamonoonteel ñu boole ñoog sëriñ bu mel mom ci son esprit de dépassement et de compréhension da fay xam essentiel mu di ca dem nañ bàyyi détails yi détail day tardel talibé lijjanti problème mu jàmbur wax waxi jambour tok ci garam place jaxasoo ñoo war ta jaxasool nañ koy wattandiku te lepp luy gëna sam sunu digënté ku baax ki ñu nekk ci mooy lan di dem diwaan sëñ bi dafa teg organisation bu leer ku ci nekkul yaa ci nekkul waaye dafa dafa leer nañ te ku ci nekk yaa ko yëgal sa bopp diwaan jëwrin ndaja manarul xudaa ndaja kër mbay faal dem na ba ne kër mbay faal bu ma fa nekkul dee leen fi daje di jàng alxuraan di dénkante par dimanche waaye bu fa sëriñ bi nekkee dimanche ñëpp bàbbee ku ñëw bu fa nekkul kenn du ñëw kon ñu dañu ëmpale sëriñ bi dañoo jàpp ne sëriñ bi newu fa dañoo jàpp ne moom newul kër mbay faal te dafa ne bu ma fi nekkul dimanche da leen fi bokk di daje di fi jàng alxuraan jàng fi nooru daare ni dénkante fi kon loolu dañ cee war di nekk kon sant nañ ko bu baax gërëm nañ ko ñu ngi wàcc foofu sunu kàddu alaykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi tuubaat bu baax ci li fi xaw waaye bëggoon rek mottali tuuti rek ci gar ñu xam ne xam nga junj naa léegi ni eh, ay xam nga mus naa ko wax sax ndax lu ñu fi wax rek ci jàngale sëñ bi lañ ko tànqe eh, te wax na lépp lu ñuy baamu lay doon ndax wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin eh, gis nga nitu yàlla bu ñëwee nag moom mooy docteur bi faj ruu yi ci seeni ràgg day tegtale ne ña fa daje ñépp dañoo am ay jàngoro hôpital nag ku fa dem faw nga gis góom boo xaw a seexlu faaw xetuk tawat xeeñ la faw nga gis koo xam ne ab daram la ca ne dina la xaw a ñeewanteeg yooyu sa xel dina ci xaw a tey yooyu mook fu ñuy fajoo ànd ndax dañuy faju te wéraguñ degré de yi du tolloo xëy na am na ñu dem ba wér pilig am ñu nekk ci diggante bi am ñoo xamante ni moom seen tawat daanaka ñu ngi dooru agsi man ngaa yàgg hôpital lool it sa tawat di yokk waaye wàññeekuwul man ngaa am kii am maladie bénigne mais mu nekk ci biti lu mel ni ay yenn feebar yi der yi ani ku ko séen rek xam ni kële moom dafa ràmm waaye ñetti fan rek lay am mu wér benn lañ koy jox mu diw mu yow sa yaram set wicc nga andak, am yaram fekk yow séropositif nga ante ni médecin ken mënu laa faj tu es condamné boo ñëwee boo gàttee xel da ngay xaw di ki ci ci ki nga xamante mu ngi motax tax te tawat ya nek ci biir hôpital ba du tax mukk ñi ni médecin ba mën ta faj kenn du natt mën a fajug médecin ci bari bu fa malade ya bare ñu ni kon mën ta faj déedéet ñay wér a ngay wér te ku wér génn daanaka waaye la ñuy gis ndax ku wér génn gi mooy ku wér dootul attirer attention nit ki daanaka dootoo ko setlu dootoo ko bàyyi xel bët bu ayib ayib rekk lay gis bu ko defee da ngay jàpp ni ayib rek a am fekk yow yaa fees dell ak ayib ba sa bët ayib rekk lay gis yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax li yonent bi waxoon ni sallallahu taala alayhi wa sallam li ëpp ci bàkkaar yi làmmiñ moo koy sabab dellu wax ni ñu ëpp ci safaan ba bu ñu leen nee lu leen fa indi duñ mën a wax waaye seenu làmmiñ lañuy junj cër yépp di ko muslu ni ko boo muccee ñun ñëpp ñu mucc boo duggee ñun ñëpp ñu dugg léeg-léeg dañuy yor picc yor taab bu ci su bopp di lijjanti piccub jàmbur képp koo xam ni yëg nga wàññeeku sa digganteeg suñ borom bul tuumaal kenn tuumaalal sa borom sa bopp képp koo xam ni saa soo xëyee yaa ngi cay yëg ak yokk santal suñ borom te bañ a gestu la bi daan wax ñu bañ koo fàtte ku nekk sa yaqiin gën laa doy ci lañ lay wax ndax yoonu tasawuf c'est une marche individuelle kooku dafa war a leer ñu xam ko tasawuf àttewul pénc jëmm ji lay àtte ak boromam charia mooy àtte pénc yoon yi jëm ci yàlla toll nañ ni nos yi nooy mbindeef yi il y a autant de chemins que de pèlerins li ci gën di ndimbal dig laxasaay gu ñu wax laxasaayu moy mandu ci jami yalla yi te bàyyi leen ak moom waaye tamit mandu ci talibé señ bi bàyyi leen ak ndax nak ak takul ak mujj rek man nag li ma jàpp mooy ni ñun bu ñu réussiree mooy ñépp jub doonte xam nañ ne yombul kon dañoo war a dimbali nit ñi ci ñu jub waaye waruñu leen a yàqal seeni pas-pas te képp ku wax nit lu tax yitteem ci yàlla wàññeeku xaw ma foo koy faye ndax xañ nga ko àdduna xañ nga ko àllaaxira dañ amoon imaam bu baax bu am xikma buñ ñëwaan ci jàkka ji léeg-léeg mag ñi nu leen neex tooge léeg-léeg njuumte yu bari ñu koy def ci biir julli buñ ñëwee xam nga jeune moom day ànd ak fugam ñu ne ko imaam da nga war a wax ak ñii buñ ko waxaa rek ma mooñ ni leen man mu ni ñu man masala muy wàññi mbooloom jàkka duma ko wax masala donte dëgg la muy wàññi mbooloom jàkka duma ko wax nañuy def rek bu yàggee buñ gisee ni ñii ñii ñii ñëpp a ngi defe nii dinañ ñu fekk ca defen woo waaye duma wax masala moom loolu nag xekk ma la maa ngi tuubaat bu baax joxew may leçon de sama ayi bi bopp laa nemmeeku bi génn li ma jàpp ne buñ buñ bu ma ci góor góorgóorloo dina saafaraw xam naa ni ñi ma bokkal ayib ji bariwul fii waaye koo xam ni man yëpp a ngi ci man waaye ku ci am benn rek nga jël booba yow jéem koo saafara woo essayé ko ba tey loolu laa ci jublu waaye man xalaatuma soññee ñimeetuma ko sax di tuubaat bu baax li ñuy faral di wax nag sëñ bi da koy digle mooy ku nekk liggéeyanti ayibam bàyyi ayibi jàmbur foofoot ñu xàmmee ni ayibi bopp bokkul ak ayibi pénc boo jëlee sa ayib def ko ca pénc ma buñ ko tuddee tudduñu say ayib ayibi pénc mi la ñuy tudd ndax pénc mi jullit bu ne day dugg ci xaddis ba man raa a munkaran fal yu'ayyiruma bi yadayhi fa in lam yastasir fa bi lisaani fa in lam yastasir fa bi qalbi waaye ngay jëf sa jëfi safaan dem ca pénc ma jëfe ko fa ñu tudd ko nga ne sëñ bi nee na bu kenn tudd tey aywi jàmbur donte sax ba ñu ko tudd gën waaye nag nit ñi dinañ ni kat nañ lii nañ defar pénc mi looloo tax ñuy wax te kenn du ko personnaliser loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax bu dee ñun ñu bokk yi dox na tey mbokki taalibe yi tamit ah dañoo engagé am lu ñu bokk man laa koy wax sëñ Babacar Bèye léegi. mané ko man li tax ma daan ëppal sax léeg-léeg ci lu ma gis di ci wax di sonn mané da ngay dem ba l'islam da koy jàppee sa tool bàyyi wala sa toolu bopp ba lu ca dim ñax rek da nga koy bëgg a dagg dox bi tamit da nga ciy fiir ndax xam nga ñun ñii wax dëgg yàlla ko ci jël askana lituñ ko sax kër man Touba fu ñu waxee bu ñu nee ma ah, maawul xeer xam nga nag kon kuy taaliba xam ma sañoon man dinaa góorgóorlu ba duma gàkkal loola parce que nit ñi yàkkamti nañ li sëñ bay jaxate naan da ngay yor téeméeri nag ñu weex seytaane tab sànni ca benn bu ñuulam ba pare ñëpp di tudd bu ñuul ba yàkkamti nañ benn bu ñuul nekk ci bañ ni xool leen nag yu ñuul yi fekk benn la ci moo tax nañ góorgóorlu ba kenn ci ñun du doon nag wu ñuul wi bu ko ku nekk defee rek mooy tàmbali liggéeyal sëñ bi mooy fexe ba yow doo doon nag wu ñuul wi ndax sëñ bi liggéey bi yépp nit ñi jub la yee yépp ay jumtukaay la poste de santé woo jumaa daara pour rek yow daara ji xam ba mën a jëf jëfi jub nekk ci jumaa ji ba mën a jub ndax inna salaata tanha anil fahshaa'il faju ba wér ba mën a jëf sàmm sa ngor mën a tegu ci siraatal mustaqim rek kon finalité bi mooy jub kon kuy liggéeyal sëñ bi fexeel ba liggéeyal ko sa jëmm ba jub yow di wax lu jub di def lu jub bu loolu matee a ah, nga doog a tàmbali nag fexeel njub googa nga jëmbat ci yow nu muy lawe ci ñeneen waaye jubagoo naan damay jubal baaxagoo naan damay baaxal doxagoo naan damay soññ gaañi loolu dëgëru fit la yalla nañ ci sun borom musal ma ngi tuubaat bu baax baax eh, di yeesal jaayante ak sang bu tedd bi ndax nak ñun am nañ kilifa gu mat kilifa am sëriñ bu matub sëriñ am nitu yalla bu mat nitu yalla am royukaay bu mat royukaay ndax man na nek nitu yalla bu mat sëkk te du neex a roy ndax dox ci batin rek waye nitu yalla bo xamanteni bang ko xamee legi lu ñuy jëf ci charia moo la ci jiitu ba pare ci àdduna rafetal jikkoom ba mën a jëflanteeg ñépp am nga royukaay bu mat sëkk boo xamante ni boo ko royee royee foo dem rek dañ lay naw waaye kenn du la xeeb te loolu nag yàlla ñu ciy jox résultat ndax mbokk taalibe koo ci fekk fam ne rek euh, nitu diine lañ ko jàppee te résultat feeñ na dox bi daanaka année début 2000 lay maaseel bu doon nit ci adolescence la toll mu samp ay daara bàyyi xale mokkal fi alquran tabax ay juma nit ñi ci jaamu yàlla defar ay jëmm ba fuñ nekk ñoo xamante ne mosu ñoo dem daara ba fuñ nekk ku masala ñëw di leen ko laaj mbooloo muñ nekk bu waxtu julli jotee kenn du nangoo taxaw seen kanam ñu jiital leen sëñ bi liggéeyal na yàlla li ma fi doon wax ne bu doon tàmbali ba amul dara ci yàlla day def ay pexeem ngir dajale ay nit di nab nabeek ñoom ngir yóbbu leen fenn bu doon loolu la tàmbalee woon li mu def ci diggante bi rek jar na lu yàlla am xëpp ko nday xam ni kii kat pilier la boo xam ni bu ko fi yàggalee moom kàddoom sax ci kaw suuf te nag koo xëy toolam mu gis la ngay bay mbay ma rafet bu la joxul woon ndékkit bu séenee samay dina la waajal ab añ waxuma laa nag mu jox la ndékki waajal la ba nga dëgër jox la laxasaay nga takk jox la illeer ni la demal ca tool ya xam nga ni sab añang lay xaar te loolu mooy kàpp sëñ bi nañ góorgóorlu di jégluwaat bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu شكوت أمي وزن بالعاسم لرب الغدير الخفور الرحيم شكوت أمي وزن بالعاسم لرب الغدير الخفور الرحيم وقم مشقيا لي وابل المنى بجاه النبي الشفيع الكريم وصلي عليه بخير انتهى وسلم سلاما عليه يدوم وقل هنا وغدا وكن لي نسيرا فإني عديم وكن فان وهب لي ردا وكن لي غفورا فإني مليم وكل معينا على مطلب وكن مقديرا لي فإني سائم وابلي صلاحا وابلي تخا ونور جناني وزدني علوم وابلي نجاة وسدني هدى واسله أموري وسدني نعيم واخرج يوبي وسدني أولا وابره سخامي وفرج خمور ولا تزيني خني مهلوكا ولا تفضحني بكوني لئيم فإني لئيم أسير الهوى وعاز ولكن إله الحليم وعافية هب هنا وغدا لنا ولمن للهدى يستقيم وسل صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم وسل صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم السلام عليكم الله تعالى وبركاته man day ma ngi jambat sa mbir ak sama bakar yu mag lol fess del asaman ak suuf ku ma koy jàmbat sa borom bi nga xamante ni moo am kàttan gu tàmbaliwul fenn te yemewul fenn di borom njëggal gu tàmbaliwul fenn te yemewut fenn di borom yërmande ju tàmbaliwul fenn te yemewut fenn kon day saa mbir mi ma jaaxal saytaane téema bakkan téema bànneex téema adduna téema yàlla moom yi rek laa koy jàmbat na xam naa ne moo ma mën a teqaleeg yooyu dox sama diggante ak ba sa bakar yi leung ci wet gone yit mom momi rek la koy jàmbat ndax mom rek mo am katanu tekkale mak mom ba faw jéggal ma ba melni musuma def ben bakar kon day yow sunu borom ma ngi ñaan day mbollem sama jàmbat loolu yi nga safara ko te nga may ma xéewal yu tàmbalee wut fenn te yemewut fenn ci darajay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamante ni mooy ki ñu ràmmaloo ki tey borom tedd nga yemewut fenn te awliya yëpp ci lañ tànq ak ngay bokk. ngi lay ñaan nga dolli xéewal ci moom de xéewal goo xamante ni amut fenn fa mu yem ak te nga musal ko musal goo xamante ni amut fenn fa mu yem day sax ba faw yow sunu borom. na nga mengo sama mbir tay na nga mengo sama mbir ëllëg na nga mengo sama mbir ci aduna na nga mbir mengo sama mbir ci alakhirah ci lu neub ak ci lu feñ tay ak ëllëg sa ndimbal na sax dak ci nun ndax nu day amuñu fenn fu yaakaar ndimbal ci kudul yow nang nu ñewantu ba faw yow sunu borom sa ñewant rek lañuy séentu tay ak ëllëg nang nu ngërëm nang nu may ngërëm lu sax dak. loo xamante ne mer dutu ca topp mukk nangu nu jéggal te bañ a xool ci nun dara jéggal nu njëgal gu sax dakk adduna ak alaxira te bañ xool sunu manqué ak sunu matadi ak doy doyadi ak sunu doywaat ak lott giñ lott ci jublu giñ la war a jublu ak jaamu giñ la war a jaamu lott giñ ci lott bu ci xool dara tàbbalal sa tàbbalul sa géeju njëgal rek nang nu dimbali ci mbooleem lu ñuy sàkku dox bi ñuy dox jëm si ci yow ci bëgg la ci wóolu la ci yaakaar la ci sopp la copp ga am fum tambali way fom amul nang yam nak ñu ci dimbali ñu sax ci dakk ta dox suñu digënté ak seytaane ba faaw nang nu jox katan ci dox gi ni dox jëm ci yow ta gatan do dimbal ak nang nu may defaru xol may nu defaru xol may nu defaru ciir may nu defaru roh dolli nu ak ragal yalla ñuy way ragal yalla ci lu neub ak ci lu feñ ta sax ci dak te nga leeral sunuy xol te nga dolli ñu xam leral sunuy xol na suñuy xol leer nañ bu ci benn ne nang nu dolli xam man day loolu la waxante won ak man rabbi sidni ilman loolu la waxante ak man ci man ak mom rek yalla nu dolli ak xam ba faaw xam nak day ñaar xam-xamu sair ak xam-xamu batin yàlla nu yàlla dimbalee ñu am ak xam ci moom yàlla lim ni na ngeen ma xam bala ngeen may jaamu yàlla nu boole ci jaam yi nga xamante ni danañ xam yàlla foofu la mbir mi nekk de téere yi baax na de waaye yëg yàlla di ko dund xam ko fi la mbir mi nekk may nu mucc ba faw nañ mucc ci bakkan nañ mucc ci bànneex nañ mucc ci seytaane nañ mucc ci noon nañ mucc ci lépp luy lore àdduna ak alaxira dolli nu sunu njub luñ ci am xeeb nañ ko nañ jub xoj te sax ca jub ga ba faw ba bañ lay fekk si yéwénalal sunuy mbir dolli nu xéewal sunu mbir yëpp na yéwén sunu mbir àdduna na jàkk sunu mbiri alaxira na jàkk sunu mbir kër na jàkk sunu mbir njaboot na jàkk sunu mbir yëpp lu ñuy yóotu nañ ca jot te na jàkk dolli nuy xéewal na xéewal yi suttiku na baawaan ndax sa mbindee fi rekk a tax na ci ñëpp am di ci xéewlu zaahiran wa baatinan génneel sunu ayib yi ci sunu bakkan ak ci sunu ruu ak ci sunu xel ak sunu xol na ayib set wiccitun dolli nu ak kawe goo xamante ni du nu tax a beew du nu tax a yàq du tax ñu fàttale du tax ñu réere la lu sunu kawe dolliku dolliku na lépp na na dolliku ci kawe sunu borom subhanahu wa taala wéralal sunu rag, sunu ragi xol sunu ragi yaram sunu ragi ru. yàlla na yàlla wéral rag ràgg ñun ñëpp mbooleem sunuy njàqare yàlla nanu ko yàlla sunu borom soril lu ñuy tiit yàlla buñ ko gis yàlla buñ ko dégg yàlla bu nu gàccaal mukk de fegal nu alkanday adduna ak alkande alaxira bul xotti sunu sutura mukk ngir sunu doyadi ngir sunu xeebu kenn ku ci nekk la muy def te nga xam ko te yëg ko di ko gis te du loo te du loo gërëm yàlla na nga nu ko jéggal bu nu topp mukk bu nu gàccaal mukk bu nu teg musibam adduna bu ñu teg musibam alaxira ngir sunu doye di ngir li nu sunu bakkan téye ngir li nu sunu bànneex téye téyel nu sa bopp li ñu nekk ay moykat te réwut yow rek lañu ñu bëgg de bànneexanu man rek bakkananu man rek nu man rek nu man rek waaye xam nañ yow rek de sunu xol yii de yow rek yaa ci nekk kon nag bu nu topp ci loolu lépp ndax yow de ku lewet nga ndax yaa nu dox yaa nu jox kàttan bànneex bi ñu jëfandikoo yaa nu ko jox bakkan bu ñuy topp yaa ko jox adduna suñuy jëfandikoo yaa nu ko jox tëriwul ñu di la mooy sag laweta tax rek waaye boo bu la sooban kenn ku la mooy ku man di doon du ko tollanti mukk kon nag yàlla noonu yàlla defal jàmmi adduna yàlla noonu yàlla defal jàmmi alaxira yàlla na yàlla dëra sunu tànk ci saraatal siraatal mustaqima tem dolli xéewalam ak muccam ci kum tànn te ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gannaawam kon mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di delloo siyaare ñëpp di delloo ba baalu àq ñëpp bis bi rafetati na ku fi génne yàlla nga fi génne njéggal yàlla nga fi génne yërmande yàlla nga fi génne tawfiq sant naa leen ci seen jëfi démb ak seen jëfi tey ak rafet njott gi ma rafet njot ci jëf yi dikk ne day gën a jëm kanam waaye du deltu gannaaw ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak tawfiqam yéen mbokki taalibe bi yëpp rawati nañu féete woon wàllu bernde yi ñëpp seen xol sedd na bernde yu matale na sëkk tey jii de ku fi dikk ku ne xam na ni sa sa sa xol fees nga fees na sa ruu fees na sam xel dellu na ci yàlla waaye li nga soxla ci sa yaram it am nga ko ba mu doy sëkk kon sant nañ leen ci taxawaay yooyu yëpp kàddu yi fi jiitu it rafetaay gi doy na sëkk jërutoon may jël genn kàddu sant naa yàlla ci yéen ndax kenn ku ci nekk day mën bu jëlee sax dolli ma kon nag yàlla nu yàlla boo ko gën a dolli te dimbali nu ba luñ man di jëf nu bañ ko gis ndax jëf ji kat lu rafet rafet lu mu baax baax baax lu mu rëy buñ ko gesto mu yaq de tu ci genn ku genn genn ku ci sa jëf mu yaq lool nañ ko bayyi xel nu ñëpp lu ci way man di jëf bul ko gis bul ko bulko bul ko xam fo man di tool del wutug yokkute waaye fo man di tool ba ni war nga dangalu saytane dab la te bu la musiba dal la nan yu dox jëm ca kanam te baña gesto te kenn ku ci nekk di gorlu ci yitte ak farnu xamni melaw wi ci lañ wara sax kenn ku xëyagul na tay jii de mom naanum ndox gisaguma ko kenn warut xëy na soxla soxlawuma dolliku ci yàlla fu ñu war a xëy dañoo war a dolliku ci yalla ni nga soxla ndik soxla añ soxla reer soxla nan soxla sang soxla ay yere te génn go ci aduna ngi nek nga fi nek tax nga soxla lol lepp noonu nga wara soxla nak mbirum yalla mi suuxat sa ak sa xel gannaaw ci yalla lañuy delu ñepp kon nak nañ gor gor lu bax amut fenn fu way mëna tollu ba ni kat war ngaa tal wala war nga dibunt wala lañuy def ci jëf war nga war nga ca dagu wala war nga caa doxee neen lu may di feetli sa laxasaay muy jëm kanam yàlla noonu yàlla gën a dimbali yàlla noonu yàlla gën a sàmm yàlla noonu yàlla gën a aar nun ñëpp nag du bokk waajal bisum njéggal bi ak bisum yërmande bi maa ngi koy digal ñëpp ku ne nam ko daan waajale bu doon benn la na ko def fukk bu doon fukk na ko def téeméer bu doon téeméer na ko def junni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu أسير الهوى وعاز ولكن إله الحليم وعافية هب هنا وغدا لنا ولمن بالهدى يستقيم وسل صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم وسل صلاة على المصطفى وسلم سلاما عليه يدوم